Puis avec l'aide de notre frère Seyni Diop, nous sommes ensemble en ce jour béni pour poursuivre notre réflexion, notre méditation du récit parabolique du Coran. mbokk yi gannaaw ñu sant yàlla subhaanahu wa ta'ala julli sallallahu alayhi wa ali ànd ak sunu mbokk seeni Jóob fas yéene wéy ci xisa yi nu alquraan di nettali ak jàngat yi ñu ci mën a jële après la démonstration du processus de notre réflexion que nous avons vu la dernière fois nous allons aujourd'hui méditer le récit du premier meurtre sur terre raconté dans la sourate Maïda du verset 27 au verset 32 raconte en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam ce qui s'est réellement passé bil suggère que le conflit entre Abel et Caïn tel qu'il est raconté par les gens du livre a été déformé par les israéliates mbokk borom bi ni yonent bi alayhi salaam watlu alayhim naba abnay aadama bil xaqi nettali leen li xewoon ci diggante ñaari doomu aadama ya xaabil ak qaabil ci lu wér bil xaqi ji dafay junj ni li xewoon diggante aabil ak xaabil la ca ahlul kitaab nettali soppi nañu ko ay israéliat la mujj nekk on a rapporté qu'au début de l'humanité chaque grossesse d'Ève donnait naissance à deux jumeaux un garçon une fille la loi interdisait alors aux jumeaux d'épouser sa jumelle et ne lui autorisait d'épouser que la jumelle de son frère mbokk ci njëlbeenu àdduna benn couple rekk moo fi nekkoon muy Adama ak Awa yàlla def jamono bu Awa ëmbee day ëmb ay seex góor ak jigéen lay doon charia maam Adama tëral ni kenn du takk ki nga xam ni yéen a bokk juddoondoo da ngay takk kay seexu keneen keneen ki takk sa seex mais Caïn décida de ne pas se plier à la loi car sa jumelle serait plus jolie que celle d'Abel selon lui pour lui donc il faut que chacun épouse sa propre jumelle ayant vainement tenté de le raisonner, leur père Adam leur aurait suggéré de soumettre le problème au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala par une offrande. Celui dont l'offrande est acceptée est celui qui a l'agrément d'Allah et c'est son point de vue qui sera euh, suivi. Bokk ka kayan mooy xaabil moom ni du topp charia du def lii nga xam ni moom la yàlla tëral ndax moom seexam bi moo gën a rafet moo gën a jongama seexu xaabil bon nag pour moom kenn ku nekk da ngay takk nag ki nga xam ni yéen bokk juddoondoo mooy sa seex ah papam Adama wax lu ne ngir génnee ka ci njuumte lii mu bañ mu ne bon nag da ngeen di dem ci yàlla mu àtte leen kenn ku nekk na saraxe ku sa sarax nangu rek yow la yàlla subhaanahu wa taala sa xalaat ak sa taxawaay ils firent leur offrande is qarraba qurbanan l'offrande d'Abel fut acceptée fa tuqubbila min ahadihim Abel était éleveur et sacrifia le meilleur veau de son troupeau. Celle de Caïn, l'agriculteur, fut refusée. Walam yutaqabbal min al-akhar, car il avait offert en sacrifice quelques bottes de son plus mauvais blé. En signe d'agrément, un feu descendit du ciel et tomba sur l'offrande d'Abel et le brûla. Mbokk ñu daal di kenn ku nekk xaabil moom baykat la euh, sàmmkat la mu daldi jël wëlloom wa gën ci géttam def ko sarax fa tuqubila min ahadihima yàlla nangul ko xaabil moom baykat la woon mu dem seet ca la gën a lompañ ca la mu am ci toolam ngub yu fënax yi gerte yu mutt ya mu sarxe yooyu walam yu taqabal min al axar yàlla nanguwul sarax bi li doon wane ni sarax bi nangu na bii nanguwul mooy sarax bu nangu rek day am safara wu jóge ci kaw asamaan daanu ci kaw sarax wi lakk alors Caïn dit à Abel je jure de te Abel lui répondit pourquoi t'en prendre à moi? Tu sais bien qu'Allah n'agrée que ce qui vient des pieux, de ceux qui ont la taqwa. foofa nag xaabil mer dal di tëkku xaabil ni que la aqtu lan nag waat naka ni danaa la rey doo duma la bàyyi mukk danaa la rey kenn ni que waaw man lu ma ci man defuma ci dara yàlla moo def innama yataxabalu llahu min al muttaqin booy mere kay yàlla ngay mere ndax yàlla moom du nangu lu dul loo xam ni jox nañu ko ko ci xol bu ragal yàlla bu gëm bu sell Abel tenta de le raisonner même si tu levais ta main pour me tuer je ne lèverai jamais ma main si ce n'est pour ma défendre et pour sauver ma vie mais jamais pour te tuer je crains Allah, Seigneur des mondes. Et puis, si tu le fais, tu ajouterais mon meurtre à tes autres fautes et tu finiras en enfer. C'est cela la punition des injustes. mu nga koy naab nag di delloo si xelam ni ka basata ilaya yadaka li taqtulani maa ana bi baasitin yadiya ilayka li aqtulak même boo jógoon jëm ci man ak sa ngànnaay pour rey ma duma yëkkati sama loxo bii mukk ngir rey la waaye nag danaa jéem a aar sama bopp inni axaafu llaha rabbal alamin man dama ragal yàlla mi nga xam ni mooy buuru mbindaa fon yépp te nag sax yow xam nga boo defee loolu da ngay dolli ci say bàkkaar bàkkaaru sama deret ji fa takkuuna min ashaabi naar boo defee loolu da ngay day day wér ni yow dangay dem safara ndax kat daalika jazaau daalimin loolu la yàlla di mbugale képp ku tooñ bon rey ma tooñ la defuma la dara xaabil le verset 93 la femme dit Jahannam, la géhenne, sera le séjour éternel de celui qui tue volontairement un croyant et en plus il subira la colère d'Allah. Sa malédiction est un tourment terrible dans ce monde mbokk yi sorotu nisaa yi wax na ko pour wax ni charia boobu rek mooy dox ba àdduna di tukki képp ku rey nit rawatina nga rey jullit mutaammidan ci tayeef fa jazaahu jahannam xaalidan fiiha kooku safara lay béel fa lay sax du fa génn mukk yàlla mere rëbb ka di ko waajal mbugal mu rëy te di ko mbugalit ci àdduna bi suratu nisa lay juróom-ñeen fukk ak ñett malgré les efforts déployés pour que Caïn revienne à la raison. Celui-ci préféra obéir à son nafs, nafs qui l'encourageait au fratricide. Il tua donc Abel et fit partie des perdants. mbokk yi li Haabil def yépp jéem waxtaan ak moom nax na xalka taxul Haabil dellu gannaaw fa tawaat lahu nafsuhu qatla axi bakkanam rafetalal ka xiirtal ka xabtal ka ci na rey magam ji fa qatala mu mujj rey ka fa asbaxa min alxaasirin mu daal di bokk nag ci ña perte seen àdduna xasira dunya wal axira perte seen alaxira voici, amis auditeurs, le premier mort, le premier mort sur terre depuis la descente d'Adam et Ève sur terre est Abel tué par son frère. Donc le rite funéraire n'était pas connu, n'existait pas. Caïn ne sut donc comment faire avec le cadavre d'Abel. Il le portait nuit et jour sur le dos et errait. Quand il se reposait, il le déposait à ses côtés. et le sur le dos en partant quelle tristesse mbokk gis nga lii mooy ki njëkk faatu ci kaw suuf Abel mbokkam rey ka bon nga ni dëj ak naka lañuy ñuy defe ku dee booba masagul am xaabil it nag xamul nu muy def ak néewu xaabil mu gàddu ko rek di wër di jooy di jaaxle bu demee ba sonn bay noppalu teg ko ci wetam bu jógaatee gàddu ko rek di wër il en fut ainsi des jours des semaines des mois Allah seul sait combien de temps il portal le cadavre et erra sur terre jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala envoya un corbeau lui montrer comment enterrer la dépouille de son frère. Il vit un corbeau face à un corbeau mort. Le vivant creusa et enterra sous ses yeux le corbeau mort. ni la Xaabil jaaxle di gàddu mbokkam mi di dem ay bis ay ayu bis ay weer ay at yàlla rekk xam ñaata jamono la gàddu néew bi xamul nu muy def ak moom fa baasa lahu guraban fi ard ba bis nag yàlla yebal ay baaxoñ benn bi dee benn bi taxaw gas ba mu xóot defar bàmmeel dugal ko ci suul ko ba mu ne ma la naaw dem ngir lan mu def li li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axi pour jàngal ka moom ni ko xëy yow nit kii nii nga war def ak sa néewu mbokk mi na dakk tey ngay gàddu néew rekk di wër ci kaw suuf Caïn s'écria malheur à moi suis-je incapable de faire comme ce corbeau et enterrer mon frère il fut dévasté par le remords bokk yi foofa mu jooy sëngem yaa waylata man alkuna ajiztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwaari sawata axi waa man est-ce que dama lott ba manuma xam ni nii laa waroon def comme nii baaxoñ bi def ma suul sama mbokk mi fa asbaxa min an naadimin yàlla mu ni dafa mujj rek bokk ci ñay réccu àdduna ak alaxira à la suite de ce meurtre nous avons prescrit aux fils d'Israël que celui qui tue une seule personne qui n'a commis ni meurtre ni délit celui-là commet un crime contre l'humanité que celui qui sauve une seule vie sauve l'humanité entière vous verrez que le meurtre c'est depuis Adam Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons prescrit à cause de ce meurtre à Bani Israël. Et nous avons prescrit à cause de ce meurtre à la communauté musulmane bokk yi yàlla jële ci àtte mu ne min ajli dalik ngir lii xew ci doomu maam aadama ya katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bi gayri nafs aw fasaadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamian wa man ahyaaha fa ka ma ahya annaasa jamian mu ne lii moo tax ma daal di dogal atte ci banu Israyil ni képp ku rey benn bakkan bu reyul kenn deful benn njombe ci kaw suuf yow def nga crime contre l'humanité rey nga àdduna bi bépp wa man ahyaaha fa ka annama ahya annaasa jamian ku sawe benn bakkan rek yaa ngi mel ni ku sawe àdduna bi yëpp seetlul mbokk lii ci njëlbéenu àdduna la booba booba Israyil muy bàyyi Yaquba juddoogul waaye yàlla ni lii moo tax ma atte ci banu Israyil bon loolu tax ñu atte ci banu Israyil atte boobu moo ñëw ba ci ummatul islaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa ali et le Nos messagers leur ont donné des preuves évidentes. Pourtant, beaucoup d'impies parmi eux continuent à semer le désordre sur terre, soit en réclamant l'abolition de la peine de mort pour les meurtriers, au détriment des victimes d'assassinats et d'assassinats de plus en plus gratuits. mbokk yi wala xad jaa athum rusuluna bil may yebal yonent yi ñuy indi firnde ci ni ku rey nañu ko rey waaye ànd ak li yonent yi depuis njaal beenu àdduna ba ci yonent bi alayhi salaam di indi atte bi inna kathiran minhum baada dalika fi ardi la musrifun li ëpp ci ñoom dañu continuer di yàqati ci kaw suuf nekk saay-saay am na ci ñu am sañ-sañ ba yegg ci ni ku rey bu la kenn def dara bakkan ba ñu rey kay na niil rek waaye yow mi rey moom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 مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله يا رسول الله La première leçon dans cette narration est l'allusion et que le Coran ne fait nullement allusion à un quelconque mariage dans ce différend. Il est simplement question de sincérité et de manque de sincérité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, Jean, Allah subhanahu wa ta'ala est pur et n'accepte que ce qui est pur. mbokk yi biñ ciy njëkk jàngate mooy boo xoolee xisa bi ni ko alquran nettalee junj fi benn yoon mbiri takk sama seex takk sa seex xuloo ci wàllu sëy li mu wax kay mooy pas-pas bu sell ak pas-pas bu sellul ku yàlla di nangul ak ku yàlla nangulul nga soxare sa morom yonent bi alayhi salaam wax na te lépp lu mu wax mooy dëgg mu ne ayyuha nnaasu inna allaha tayyib laa yaqbalu illa tayyiba mu ne yéen nit waxul yéen yéen ñi gëm de dafa ne yéen nit xam leen ni yàlla dafa laab du nangu lu dul lu laab la deuxième leçon c'est le danger que constitue l'envie, la jalousie, qui est la seule cause de ce conflit. Ils firent chacun une offrande, Allah agréa l'une et refusa l'autre. mbokk yi ñaareel bi ñuy jàngate ci li xew ci diggante xaabil ak xaabil mooy mbon goo xam ni soxar ak mébét lu nit am teg sa bët ci li nit ki di am rek loolu moo jur lii is qarraba qurbanan fa tuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axar fa yaxsudu sarxe yàlla nangul kii bañ nangul kële kooku soxari yëg coxarteef ci xolam ñi dana la rey c'est alors que Caïn décida de tuer son frère Abel je te tuerai Abel répondit est qu'Allah a agréé mon offrande Allah n'agrée que les par la piété la taqwa l'intention la sincérité la pureté de l'intention mbokk yi xaabil ni ko dama lay rey comme que yàlla nangul na la mu ne ko waaw yàlla nangul ma rekk da nga ma ci rey innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla li muy nangu mooy lu jóge ci ku ku xolam sell laab mu def ko te yàlla dong tax bon nag booy yedd yeddal sa bopp bu yàlla na gàntale la yaa ko def waaye soxar na gis nga añaan bul yaakaar ne dañ lay añaane li nga am nii rek sa kër sa nangam sa liggéey dañu lay añaane xatta sa jaamu yàlla sax nit ki da ciy teg bëtam añaane la ko soxare su taxsuduuna naas yàlla wax na ko ci yahud ya mu ne ndax dañuy añaane jullit ñi li ñuy jaamu yàlla nañu war a jaamoo yàlla te ñoom ñu xam ni jàdd nañ sur ce point il n'y a pas de divergence entre les confessions Car ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ses créatures, toutes confondues, c'est la taqwa, c'est l'obéissance sincère à ses ordres et ses interdits. Le verset 3, sourate Zumar le dit. La religion pure, l'adoration sincère, le culte exclusif est destiné seulement et doit être rendu uniquement à Allah subhanahu wa Et le verset 5 sourate Al-Bayyina, la preuve nous dit, on ne leur a ordonné que adorer Allah par un culte sincère et exclusif. yomb na gis nga ci tomb bi moom diine yi li ñuy wuute wuute wuute amu ci ndax gisaguma benn diine bu ni yàlla séentu na ci kenn lu dul gëm ka ak ragal ka ak dégg ay ndigalam bàyyi ay tereem suratu zumar wax ke ca ñett mu ne alaa dama ni lillahi diinul xaalis yàlla moom la la mu yeyoo mooy diine ju sell jaamu gu sell ngëm gu set wecc suratu zumar laye ñett suratul bayyina feelu ka ni ka wa maa umiru xamal nag ni santuñu nit ñi illa li yacbudu llaha muxlisina lahu diin hunafa lenn rekk lañu sant nit ñi ni leen jaamu leen yàlla moom dong sellal jaamu gi sellal topp gi sellal déggal gi moytu lépp loo xam ni lii du yàlla donc amis auditeurs la thèse du crime passionnel n'est pas confirmée par le Coran glorieux et sage à juste titre en y réfléchissant, avez-vous entendu une seule fois qu'Allah subhanahu wa a proposé de revoir sa loi, sa charia, parce que un pécheur, un rebelle ne veut pas s'y soumettre, du jamais vu dans aucune religion di bon da ngay wax ni ñi ak xaabil li leen boole mooy wàllu dangay ngay nopp kii da bañ nopp kii da takk kii dangay takkale loolu taxawul fen boo ko seetloo itam dangay gis sa xel rekk du ko nangu ndax dama lay laaj ndax mas nga dégg benn fenn ci benn diine ak bunt doon lislaam yahud nasaraan même ñi gëmul yàlla ñu ni ñun sunu téere ngi nii yàlla nee na atte bu ci mënti nekk bu amee benn saay-saay bu ne nanguwu ko nañu seetaat atte bi na muy dëppoo bëgg-bëggu nit kooku loolu kenn mësu ko gis fenn te amul fenn itam pour le prouver je vous raconte ce récit demanda au prophète alayhi salam et cela devant tout le monde la permission de faire l'adultère les compagnons se ruèrent pour le tuer Laissez-le, dit le prophète alayhi salam. Et il lui dit, approche. Il ne lui a pas dit, attends que je demande à Allah s'il peut modifier les versets 32 sourate Isra et verset 2 sourate Nour pour toi, pour que tu puisses faire l'adultère. C'est inconcevable d'ailleurs, c'est même ridicule mbokk yi pour firnde loolu fàttalikul xale lu góor waxanda mbaane ba ñëwoon ci yonent bi alayhi salaam ni ko yow ki yàlla yónni waaye man de dama bëggoon izin lii bi zina nga may ma ndigal atte yi wàcc ci wàllu njaaloo ngeen teggil ma ko man ma mën a njaaloo num ma neexe ak ku neex nit ña jóg bëgg ko tatafoo yonent bi alayhi salaam ni leen ma ma bàyyi leen ko ni ni ni xale bu góor bi oddunu jege sil mu ñëw ba sës la meilleure des créatures lui dit veux-tu qu'on le fasse avec ta mère il s'écria qu'Allah m'en garde subhanahu wa taala le prophète lui dit mais les gens non plus ne veulent pas qu'on le fasse avec leur mère et il continue ces questions veux-tu qu'on le fasse avec ta fille ta sœur, ta tante paternelle ou maternelle, la sœur de ta mère. À chaque question, il s'écrie jamais de la vie. Et à chaque fois, le prophète alayhi salam lui dit, les gens non plus ne veulent pas qu'on le fasse avec leur fille, qu'on fasse l'adultère avec leur sœur, qu'on couche avec leur tante maternelle hors mariage ou avec la sœur de leur mère. C'est comme ça que le prophète alayhi salam le ramena à l'ordre d'abord de façon raisonnable, l'amena à réfléchir sur la gravité de son acte et à trouver lui-même que son acte est abominable. Ensuite, il posa sa main bénie sur la poiture du jeune homme et dit, Seigneur, pardonne ses péchés, purifie son cœur et protège-le contre l'adultère. Et depuis ce jour, dit-il, je n'ai plus pensé à faire la fornication affaire de l'adultère à même regarder la femme d'autrui bokk yi yonent bi alayhi salaam nekk fa naan ka xaaral ma laaj yàlla ndax dana la ko may waaye dafa ko bàyyi won moom muy gisal boppam ni lii muy ñaan ñaaw na bon na moom bëggul ko ko def bon lu tax mu bëgg ko def nit ñi mu door di teg nag loxoom bu tedd ba ci dënnu xale bu góor bi ni allahumma axfir damba yow yàlla baal ay bakkaar yi nga xam ni jot na ko def njaaloo yépp yi mu def balk ka ka wa tahir qalba yow yàlla laabalal xolam wa xassin farja te nga fekk pëyam ci njaaloo mu ne man dey ba ma jógee bala may jógee ci jataay ba rek sib naa njaaloo façon boo xam ne masatuma geestu sax di xool waxuma laak di jéem njaaloo ak jigéenu jàmm Et je suis sûr et certain, je ne doute jamais que c'est ce que Adam alayhi a fait avec Caïn. Il lui a rappelé le caractère immuable de la loi du mariage et lui a dit qu'il ne tolérera pas le moindre écart par rapport à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala bokk yi wér na ma ni bàyyi aadama lii yonent bi alayhi salaam def loolu rekk la def ak xaabil deful lu dul fàttali que ni lii mooy atte yàlla bi atte yàlla boobu moom kenn du ci neexal kenn kenn du ci nax-naxal kenn kenn du ci wàcc lenn tarfetal ay ni te kenn du nangu itam nag nga jalgati ko ci biir penc mii lii mooy taxawaayam waaye du du fa nekk di yox yoxi nan ka dem leen ngeen sarxe ñu xool ndax di nga mën a takk kii nga xam ni waroo ko takk walla kee dana da dana ñàkk mën a takk ki mu war a takk jalgati atte yàlla yi ci bëgg-bëggu ab kàccoor ab saay-saay bu bëgg mooy yàlla kenn mësu ko gis fenn te kenn du ko gis mukk ci diine yu wér yi yàlla wàcce ci jaamam ami auditeur auditeurs sache que la jalousie est le premier motif de péché c'est la première motivation de la désobéissance d'Iblis c'est ce qui poussa Iblis à vouloir faire du mal à Adam sa gravité et son danger sont si immenses, si immenses, que le Coran s'est terminé par sourate Falaq et Nas, qui nous enseigne comment nous protéger nous-mêmes d'être des jaloux, des envieux, mais aussi comment nous protéger de l'envie et de la jalousie des autres mbokk yi ak iñaan iñaan motif bi njëkk ci moy yàlla ci kaw ci ci ci ci mbindaafoon yi añaane aadama moo tax ibliis ni rekk taxaw dàggase ak yàlla ni ka du def li ma sant añaan ak soxare aadama moo tax ibliis taxaw ni danaa yàqal aadama mi ak njabootam kenn du la ci sant gis nga mbonteefu bii bàkkaar te mooy yëg ci sa xol kiñaan loolu moo tax yàlla tëje alquraan ci téeméeri saar yi ak fukk ak ñeent la mu ko tëje mooy suuratu falaxi ak suuratu naasi ñaari saar yooyu di ñu jàngal ñun ci suñu bopp naka lañu ñu war a def pour mën a bañ am feebaru kiñaan boobu ci ñun waaye naka lañu mën a mucc ci koo xam ne feebar boobu dal na ko min charri l waswaasi xannaas wa min charri xaasidin isa xasad dans ce récit, amis auditeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, méfiez-vous, de jalouser les autres et de les envier. Méfiez-vous de la jalousie et de l'envie des autres. L'envie brûle les bonnes actions comme le feu consume le bois, nous dit la meilleure des créatures, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Mbokk yi, yàlla ngi ñu ciy wax jaare ki ci làmmiñu yonant bi alayhi salaam mu ne iyaakum wal xasad moytu leen soxor moytu leen iñaan fa inna alxasada yakulu alxasanaati kama taakulu naaru alxatab mu ne iñaan day lekk jëfu ki ki iñaan ak jëfu ki mu iñaane ni safara di lekke di lakke ab matt di lakke ab këriñ nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu wërsëgal nu musal nu ci soxar ak iñaan musal nu ci iñaanu aji iñaan bu jógee di ko jëfe wërsëgal nu boole ñu ci way dégg yi mën a topp loolu yomb na borom bi yàlla na nu ko defal l'Ish'arawi radiallahu ta'ala anhu tire une troisième leçon. Il dit qu'Allah rappelle aux hommes que leur aversion pour quelqu'un ne signifie pas que ce dernier n'a rien de bon. Vous pouvez détester quelqu'un alors qu'Allah vous réserve beaucoup de bien par son intermédiaire, dit le verset 19 sourate ñetteelu jàngat bi dañu koy àbb ci góor gi di mutawalli Sha'rawi yal na yàlla yërëm ka mu ne yàlla day fàttali ci xisa bi ni ni nga bañ nit bañ goo bañ nit tekkiwul ni nit kooku dara baaxul ci moom wax na ko mu ne fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu laahu laahu fiihi xayran kasiran mën na am nga bañ nit sib ka mënoo ko xajoo mënoo ko jege waaye waaye tekkiwul ni fekk yàlla defal na la ci ci waajooju ngay bañ yiw wudul jeex njariñ boo xam ni foo ko nat weesu nag regarde nous dit-il les hommes ont un préjugé négatif sur le corbeau ils le voient comme un oiseau de malheur et de mauvaise chance Et le corbeau sert d'acteur principal dans beaucoup de films de terreur et d'histoires de sorciers. Et même ils ont donné son, son nom à la voiture qui transporte les morts. Ils l'appellent corbillard qui est tiré de corbeau mbokk yi mun nañu gis nga nit ñi nit ñi dañu bañ li nga xam ni mooy baaxooñ baaxooñ nit ñi dañuy jàpp ni moom foo déggee yuuxoom walla foo ko gisee rek yëgal ni mbugal a ngi wàcc sa kaw lor a ngi wàcc sa kaw loo wuti doo ko am loo yaakaar mu tas baaxoñ boobu bu ñuy defar film boo xam dañuy tiitale moom moom da cay ne bu ñuy nettali ay léeb yoo xam ni ay jinne ki dëmm ki yooyoo ca ne baaxoñ da cay ne bañ nañu ko ba nag tubaab ya ñoom oto bi nga xam ne bu ñu nit deewee moom la ñu koy yóbboo dañu duppee turam ci baaxooñ tuddee ko corbillard corbillard nga ni corbeau rek et voilà que c'est le corbeau qui nous a aidés et nous a enseigné comment enterrer les morts nous devrions remercier les corbeaux car sans eux peut-être nos dépouilles joncheraient les rues et les ordures comme les carcasses d'animaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Messieurs, mesdames les corbeaux mbokk yi dañuy seetlu ni li ñu bañ-bañ baaxoñ mënuñu weddi ni baaxoñ moo nu jàngal naka lañuy suule suñuy néew bon kay li waroon suñ digganteek moom fu nu ko gis sant ka ñaanal ko yàlla ndax budul woon ak moom dangay gis nit bu deewee néew yi ñu sànni ci mbedd yi ñu sànni ci euh, mbalit yi comme ni ñuy sànnee meddu xar yeeg bëy yi ci kaw mbalit yi yéen baaxoñ ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu barkeel seeni dund dolli leen tawféex defal leen jàmm ci àdduna yi ak ci àllaaxira yi et ce que nous oublions est que les corbeaux forment des communautés bien organisées. Ils ont une organisation sociale très élaborée, très avancée. Ils se marient et vivent en couple. Ils interdisent l'adultère. Personne ne touche la femme ou la fille d'autrui. Ils jugent et punissent l'adultère et tous les crimes. mbokk yi moo ne li nga xam ne ñun moom la ni ni nuy dundee ci société noonu la ñu amee ay société société yoo xam ni ñoo gën a avancé suñu société yi baaxooñ yi dañuy sëy di takk seeni sëy dañuy tere njaaloo di tere bàkkaar am seen tribunal yoo xam ne dañuy àtte ils jugent les délits rien ne manque dans ces tribunaux les procureurs les avocats les témoins les preuves et selon la gravité des fautes on punit les criminels par la réparation des torts, par le bannissement temporaire ou définitif et même par la peine de mort. Et nous venons de voir dans ce récit qu'il connaissait avant nous l'enterrement des morts mbokk yi tribunalu baaxooñ baaxooñ yi dañu tribunal yi ñuy yi tribunal yooyu li li sunu tribunal yam yëpp am na ko ñoom ñoo ñu ko jëkk am am nañu ay procureur koo xam ni mooy aar société bi mooy taxaw ci àqu société bi am nañu avocat yoo xam ni ñi ñuy tuumaal ñoom ñooy taxaw di leen atte am nañu seede maa seede woon ni yow yaa jël yëfu diw yaa def nangam am nañu preuve yi tooñ bi ni mu toll noonu la seen daan di toll mën nañu daan nit ci la nga yàqoon da nga koy defaraat mën nañu daan nit ci dañu lay génnee sunu sunu société bi diiru nangam wala yow bokkatoo ci ñun ba faw boddi nañu la gedd nañ la wala sax nag ñu àtte ci moom idaam mooy peine de mort ñu ne yow dañ lay rey ñu rey la it gis nañu ko yàlla nettali nañu ko léegi ci xisa xaabil ak xaabil ni ñoom ñoonu njëkk xam naka la ñuy defee ak baaxoñ bu dee moo tax doo gis meddu baaxoñ meddu baaxoñ moom ku gis rek yàlla na la yàlla musal ce récit donc reprend le conseil de la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui qui nous dit modère ta passion pour autrui car tu peux un jour ou l'autre éprouver de la rancœur contre ton bien-aimé modère aussi ta rancœur, car celui que tu détestes aujourd'hui peut devenir ton ami demain mbokk yi bi dafa ñuy delloo si ca la ñu yonent bi alayhi salaam dénkoon mu ne ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baxiduka yawman ma mu ne yow booy bëgg-bëggal ndànk ndax mën na am kii nga bëgg tey ba mu jaral la lu ne ci kanam tuuti rek dafay wëlbatiku nekk koo xam ne dalay bañ nga bañ ka ngeen sibante wa abrid baridaka hawnan ma booy bañ bañal ndànk nit ki asa an yakuna xabibaka yowman ma mën nay am diir bu gàtt rek kooku nga bañoon wëlbatiku nekk sa xaritu benn bakkan bon bañal ndànk bëggal ndànk ngir ëllëg La quatrième leçon est que celui qui invente une bonne tradition recevra sa part de récompense chaque fois que quelqu'un l'appliquera. De même, celui qui invente, initie une mauvaise tradition recevra sa part de péché chaque fois que quelqu'un l'appliquera et la suivra. Dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. mbokk yi ñeenteel biñ ciy jàngatee mooy la yonent bi alayhi salaam wax mu ne képp koo xam ne fent nga sunna wu rafet yow képp ku jëfe sa sa sunna woowu sa fent woowu danañu la bindal yiw ba ba àdduna tukki waaye képp ku fent ab ñaawteef tëralin bu bon képp ku jëfe tëralin woowu ñu bindal la ci sa bàkkaar nañu koy bindale bàkkaaram du wàññi ci bàkkaaru kenn ci yéen ñaar dara c'est ainsi que la meilleure des créatures le prophète Mohammed paix et salut sur lui dit qu'aucun individu ne sera tué injustement sans que Caïn n'ait sa part de responsabilité sur ce meurtre car il est le premier qui a inventé initié la tradition du meurtre du crime yi noonu la yonent bi alayhi salaam waxee ni laa tuqtalu nafsun dulman illa kaana ala bni aadama al awwal kiflun min dammiha mu ne amul benn nit ba àdduna di tukki boo xam ne rey nañu ko ci kaw tooñ lu dul xaabil mii doomu aadama ju njëkk ji njëkk rey ci kaw suuf dana ci am wàllam ci bàkkaar bo ñu ne que lu tax mu ne dalika li annahu awwala man zanna zanna al mu ne ndax moom mooy ki fent rey moo fi njëkk rey ci kaw suuf moo wane yoon wi moo ubbi bunt boobu enfin le verset 85 sourate Nisa nous dit celui qui intercède dans une affaire juste recevra sa récompense celui qui intercède dans une affaire injuste illégale recevra sa part de punition pour ce péché. Sachez qu'Allah veille sur ce que vous faites mbokk yi suratu nisaa yi wax ka mu ne man yashfa shafaatan xasanatan yakun lahu nasibum minha mu ne képp koo xam ni dox na ci mbir mbir mu rafet tinu ca dox ca wax ca ba mbir ma sotti moom yàlla dana bindal tuyaaba ci jëf jooju waaye nag képp koo xam ne dox na ci mbir di ca tinu di ca wax di ca yëngu di ca jëf di ca dugal alalam ci ñaawteef ba mbir ma am yakun lahu kiflun minha dana dana ci am wàllam ca bàkkaar ba wa kaana allahu ala kulli cheyin muqita xam la ni yàlla mu ngi toog lu lépp di la xool ci la ngay def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 للإسلام ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله mbokk yi ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal International àndoon ak sunuy mbokk Seyni Diop Mouhamed Chérif Diop di joxante ndaje ci beneen xisa ci alqur'an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 wa alihi wa sahbi akwan mustafa rahman anta fil akwan mustafa rahman le message du Coran hadiyan lillah ya rasul Allah